loolu rafetul ci gis gis quoi léegi pour yow pour pour yow daara yi nan wa nan war a utiliser daara jéem a mën naa ñàkk daara ndax te tollatuñu jamono joo xam ne jamono jamono joo xam ne dañoo a di jël xam am na loo xam ne rafetul ci doomu aadama ñu tënk ko comme ça. xam nga bu am xel. di xelal li ci kanam. ak li ci ginnaaw. ba pare tamit di xalaat ne di am na mhm. ci war a benn. yow yaa ngi naan gis-gis ci maanaam ñu jëng nit maanaam tey ji fekk nga fekk mu jëng nga ne gis-gis rafetul ma daana rafetul bu dee ci sama waaw bu dee ci sama xel daana rafetul waaye maanaam daal bu ñàkkoon teggit ba nga xam ne jëmmi euh, sëriñ dara bi të bi tëjlu bi kii yaay bi jënglu gone gi bu ñàkkoon teggit lu ko def mhm. léegi nag léegi daa xam ne léegi njëriñam la mhm. njëriñam tey jërëjëf léegi ah, man léegi man dara fekk maanaam daal li muy noonu ko ma ñu dëng fekk ñu jub léegi ah, nag ñu dëng am noonu am noonu ñuy def ba bëgg la bopp am noonu ñuy def ba ba seen kii bi dañ wala li nekkoon dëgg gi na ko dañ léegi nag dé si am yoo xam ne jéem jéem ko mën a dindi hmm. léegi soo jéngee léegi jël na ko kër gi yaa toog fi nga toog say xam ne yow bu ñu la bàyyee toogee li nga li ñu am di ko am te doo ci sonn moom kenn du la jéem. <laughs> du la jéem a toog ah. Ah. léegi loolu nag mooy atub jéem d'accord léegi yow looy wax xam nga sama genre gi nga xam ne man ni nga ko xamee nii xamee ma ko noonu te yaakaar naa ne kun jéng rek jaam nga effet léegi yow lan ngay wax ñi a xam ni xamuñu lan mooy jéng gangster yi après ñuy bëgg a interpréter ci Dieng di ci wax di ci wax ci Dieng yaa ngi comprendre léegi lan ngay wax ci ñooñu. <coughs> dañuy wax si maanaam seen xel dafa gàtt. Mhm. te dañuy njëw ci daal ba ba xam li ci daal. Uh-huh. ba pare tamit euh, euh, am nañu ku ko xam. Mhm. maanaam ni ma la koy misaale. Mhm. Euh, nee na nit dafay liggéey ab liggéeyam ba man ko. mu métti lool keneen ñëw di ko liggéeyal yow xam liggéey bi météo di liggéey bi nga gis kooku muy daj li ci kii bi li ci. li métti ci liggéey bi léegi kenn nga xam ne gi dara xam nga kii bu ñëwee da koy bàyyi noonu rek naan ko yaa ñàkk jëm ak nangam nangam ay yow bu yono bu da koy sant naan kii góorgóorlu def dër baax xam a yow li nga xam moom xamul léegi jëg jëg noonu la kon daal kon daal jéng daal ku nekkul ci daara waroo mun a euh, munoo xam lan mooy jéng te it fi buñ ko deful ba nga wees yi munoo xam njariñu dee jéng te it fi li ma déggee sa wax mooy comme ça daara ji duñ tëb tëb rek jéng nit nit ki li tax ñu lay jéng yaa koy def xam nga nit ki moom ah. doone danga fekk xam ngi muy toog jàng mm-hmm. daw wala nga fekk kii jàng di daw nga na ko yëng mhm. xam nga loolu xeesul. xam nga loolu xeesul léegi bala nga bala nga mën a jéng dangay jékki benn juggi daw baa nga am loo def loo xam ne jéng dong boole ci wala jëlee daa am loo xam ne yar moo koy dindi am loo xam ne jéng koy dindi am loo xam ne wax